asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziara ah, di leen ñaanal jàmm ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm di nuyu mbokki internet yi di rawatina ñi nga xamante ne si ñoom ñooy euh, ñoom ñooy seetaan suñu suñu suñu site bi di Géoul euh, Art TV ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar fépp fu waaye mën a nekk nañu seetaan di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi euh, di nuyu soxna Aram Seck sama xarit maa lay nuyu bu baax dina ziara di am mbégte contentement di jàkkaarloo waata yow fii suñu biir émission bi ñu def fii ci géwlu Art TV. di amaat mbégte bu baax baax di santaat yàlla nag moom mi ñu may ñu fekkee ñoo ko koy sant bu baax sant bu am tàmbalikaay waaye tam amul yemukaay di ñaan rek borom bi tabaraka wa taala mu ñu koy jàpp ndax saa su ne ñuy man di teew fii di amaat mbégte euh, di jàkkaarloog soxna Aram macha allah ci suñu biir émission li ci kër gi tubaarkàlla comme ni leen ko waxee woon saa su nekk ñu fas ko amal fii Géewul Art euh, chaque 15 jours incha allah taala tey nag ma fas ci ànd ak suñu mbokk soxna Aram comme ni mu ko daan faral di defee dama daal di jox soxna aram rek kàddu gi mu daal di nuyoo. sax na maam Diarra maa ngi lay fay nuyoo bu baax a baax di nuyu sunu mbokku internet yi nga xam ne ñoom ñooy topp ci sunu euh, seen bi nga xam ne si moom mooy Gueoulart TV di sant yàlla bu baax a baax julli ci sang-sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di nuyu kullukum koo xam ne rek yaa ngi topp suñu seen bi nga xam ne si moom mooy Gueoulart TV ak si seen euh, émission bu mag bi ñu koy wax rek li ci kër yi waaye noonu la ñuy nuyoo nag waa diaspora bi ndax ñoom itamit ci lañ bokk macha allah ñoom itamit dañuy bàyyi xel bu baax a baax waaye itam di nuyu ñi nga xam ne si dañuy partager di aimer ndax nag doolee jën ndox la te ñoom saa su nekk ñooy jàpp ci émission yi. Mm-hmm. di partager rek macha allah ba ñëpp di ci mën a jot soxna jaara loolu loolu mooy nuyoo bi. macha allah soxna Aram nu ah, dellu si waat sa nuyoo am na solo ñoo koy rafetlu bu baax baax comme ni ñu ko waxoon rek ci suñu njëlbeenu wax wala bokk suñu njëlbeenu émission. Euh, noonu lañu koy far di dellusiwaatee incha allahu taala ndax nee naa leen euh, ak Géewul Art TV ak Soxna Jaara ak Soxna Aram Seck ñëw leen nii fas yéene amal chaque 15 jours émission bu am solo muy émission bu bees bee passé na Soxna Aram suma juumulee ñu ngi woon ci waxtaan bu am solo ndax dañoo doore woon émission bu mag bu am solo boo xamante ne si maanaam mooy goro maanaam at jéeg bi nga xam ne si moom moo nekk ci kër gi euh, ginnaaw boobu émission bii la woon léegi tey jii nag ñu indi leen beneen émission boo xamante ne si nag tey dañ ko fas yéene waxtaane waat maanaam muy eh, demee ni ko maanaam njëkkee ndax soxna aram buñ nee njëkkee mu nekk lu am solo lool ci kër ndax damay wax kër goo dem rek tubaarkalla macha allah njëkke mi ngi fa moo xam njëkke bi nga xam si ñëw la moo tax moo xam njëkke bi nga xam taxawaayu njëkke daal tey moom moo tax ñuy wax maanaam taxawaayu njëkkee ci biir kër gi loolu daal lañu fas ne waxtaane incha allahu taala soxna aram lan mooy sa sa xalaat soxna maam jaara macha allah am naa mbégte ak contentement jàkkaarloo jàkkaarloo waat yow rek. Mhm. fii ci sunu seen bu mag bii ñu koy wax Géewul Art TV waaye itam émission bu am solo ñu koy wax rek li ci kër yi. li ci kër yi nag lépp ngi ci kër yi ndax bii passé dañoo waxtaane woon goro yi euh, soxna Dia li ma jot si ay message kenn xamul nu mu toll. Mhm. ndax am na si ñoo xam ne macha allah gis nañ ci seen bopp bu baax a baax. Mhm. moo xam goro yu ndaw yi wala goro yu mag yi. léegi nag comme li ci kër gi lañ waxtaanee te kër yi kër yaakaar naa lu nekk mi ngi ci. tey nag ñu fa yéene waxtaan rek njëkk yi njëkk yi nag bu ñu ko waxee mooy njëkk bi nga xam ne si mooy magu jëkkër wala rakku jëkkër mhm. njëkk bi nga xam ne dafa sëy njëkke bi nga xam ne tamit dafa sëyi ba tas mhm. loolu yëpp rek fii lañ koy waxtaane seen euh, émission bu mag bi ñu koy wax rek euh, li ci kër yi soxna maam jaara waaw soxna aram am na solo tey nag euh, fi ñu bëgg a dooree mooy benn soxna dafa ma woo téléphone mhm. moom nee na maanaam boroom këram dafa fonk jigéenam jigéen yi maanaam dafa fonk ay jigéenam. Mhm. maanaam dafa jël ay jigéenam ndax tubaarkalla teg leen foo xamante ne si ne fa mu leen war a teg la. Mhm. mais lan mooy taxawaayu njëkk bi ci kër gi ndax moom nee na gis na borom këram fonk na ay jigéenam moom tam nee na ma nga cay def la mu man mhm. waaye nag am na ci daal façon njëkk yoo xam si biir njëkk yooya donc daal ñu dañ koy yàqal ma ak borom këram. Mm-hmm. ndax nee na ma sax moom yamul ci digganteem ak borom këram ndax moom du moom rek la parce que moom nekk na fa di aawo mais tamit keneen fekk si na ko mm-hmm. mais day gis ne souvent borom këram juumoo yi muy am ak soxnaam yi donc njëkkee ñoom ñoo ciy laxas parce que daf leen a mu ba mu ëpp mm-hmm. ce que maanaam jigéen boo xamante ne si yow yaa ngi ci kër sa càmmiñ fonk la teg la ci kaw ah maanaam lan mooy sa taxawaay boobu njëkkee lan mooy taxawaalam ndax yow da ngay nekk pour defar wala ndax dangay nekk di pour yàq soxna maam jaara wax nga lu am solo xam nga njëkke taxawaayam ci kër dafa am solo bu fekkee njëkk bi xam na lan mooy rôlam ci biir kër gi mhm. ndax nag bu fekkee dangaa jubóog sa càmmiñ ba loo wax mu ne loolu la kon donc yow li la war rek mooy nga rattaxal diggante mi ak ay jabaram mhm. loolu dina tax moom xelam dina mën a dal ndax dafa am ay góor yoo xam ne ndeysaan dañoo jubóog seen jigéen ñi ba nga xam ne lu ñu leen wax rek loolu la ñuy def mhm. lu ñu leen wax loolu la ñuy def waaye dafa am njëkkee yoo xam ne si ay njëkkee ruubekat lañ ci ñi ma ko saña wax njëkkee yi nga xam ne si dañu ay jabaru càmm mais dañuy fatfatloo ci kër gi mhm. am jabar ju ñuy àndal ak jabar juñ juñtul àndal mhm. te pourtant sa càmmiñ moo fi indi ñëpp mhm. da nga war a ñema yemale ñëpp ñuy benn ci kër gi boo gisee ne kii def na naka su dul noonu nga wax ko dëgg bu ko defee ñu àndaat seen ànd mais loolu du am bu ko defee nga am koy faral loolu dina tax souvent après yenn saa kër yi am ay jaxasoo yoo xam ne da ciy am kon donc góor tamit moom war naa am seetlu bu baax loo jubóog sa jigéen jubóog sa jigéen am na ci loo xam ne si waroo ci ànd ak moom ndax kii yaa ko takk ji jële ko ci kër ndayam ak baayam mu ñëw say sil la kon donc ay waxi njëkkee dañ koo war di seetaan mais njëkki sa sa jigéen wax la rek nga d'accord si li mu wax ba tax sa digganteeg sa jabar ñankas ñankas di ci am soxna Diallo dina bëri ay problème yoo xam ne dina am ci biir kër yi. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah soxna Aram am na solo mais damay desendiwaat ba tey ci maanaam euh, jox nopp gi nga xam ne ci lañ la euh, joxe nopp ndax nee na soxna Aram ndax damay wax ne. Mm-hmm. Euh, bu fekkente ne yàlla dafa dogal yow sa càmmiñ donc ngeen déggoowee. moom nee na lu ko ci gën a metti maanaam comme ni nga ko waxee woon sànq. maanaam njëkk yi dañuy faral souvent tey buñ jëlee maanaam xam mu nekk nañ ci kër gi ak mhm. jabar yi mhm. buñ jëlee kii tey ak ajal ko ba ci kaw donc ba jëkkër ji fekk si leen ci ñu wàcce ko ndànk aj ajalaatal kee ba jëkkër maanaam noonu lay def ba ba fas di di di yàq seen ay diggante mhm. ñu dem ba ku góor gi mën naa wàcc na trois femmes yoo xamante ne si ne buñ toppee date ba ca date ba rek daanaka ci jigéen ci lay bàyyi ko mm. parce que maanaam góor gi comprendre wul maanaam ban jigéen la ko yàlla booleel maanaam mm. ban jigéen bi nga xam si moom moo ko war a defaral tey teel ko ay soxnaam. Mhm. comprendre loolu. Mhm. mais à la fin bi ñu demee ba mu bàyyi troisième femme ci la doog a comprendre nekk te këram li mu yàqu yépp ay jigéenam ñoom ñoo ko ko yàqal. Mhm. donc ci lay doo ko comprendre ci lay doo ko nag taxawaay nag defaat taxaw seetlu nag soxna yi mujjee am. yor na ñaar instant bi waaye nag mi ngi téye soxna yooyu mais njëkk yooyu tey dañu daal dem dañu ko daal di boycotté teg ko nele hmm. xam nga kon njëkk yooyu maanaam yow cër ba leen cër ba leen seen càmmiñ joxoon ñoom méritowuñ loolu hmm. kon soxna aram njëkkee yi dama koy tàmbalee rek si man damay wax ni soxna aram ñun njëkkee yàlla dafa def dañoo bokk suñu borom kër yi. Mm. waaw dañoo bokk suñu borom dañu maanaam dañoo bokk ak suñu mag yi. Mm-hmm. bokk ak suñu rakk yi. Mm-hmm. te damay wax ne jigéen boo xamante ne si ne sa càmmiñ càmmiñ yi ñëpp am nañ jabar te yow sa càmmiñ amul jabar man jàpp naa la loolu yow defet lay doon ci du la neex. ndax boo amul jabar dañ naan ah diw de moom amul jabar diw de moom jabar ba mu yor fase ko diw moom amul jom la ñuy wax. Mm-hmm. kenn du la nawloo. kon dèjà yow sa taxawaat ci sa càmmiñ mooy bu indee jeeg ci kër ak jeeg ba nu mu mën a mel rek. na ko teel téye sa fukki loxo ak sa juróom defar ko nëbbal ko ay bam yi li nga xamante ne si moom mooy ay mbon bonam nga daal di ci joggi sa tànk bi dafay am njëkk yoo xamante ne si tamit soxna aram mm-hmm. euh, maanaam ci seen wàllu yaay ñoom ñooy tax ñuy maanaam seen wàllu yaay moo tax moom ñu maanaam seen wàllu yaay moom moo tax ñuy jëlee parti mais bul def noonu yow comme yow dangaa jabootee ci la yàlla boole muy sa mag wala sa rakk jabooti tamit yaay ji foofu dangay taxay foofu nday ji seex bu yaay débordé nga ne ko ah yaay dangaa débordé yaay du nii yaay kay kii xale la jàppale ko nii la bu sa càmmiñ débordé nga ne ko ah sama càmmiñ ñi nga taxawee nii du noonu defara mais bul xool rek jéeg bi am defet rek yow li ba nga commencé am porox loolu foofu commencé naan ko moom de nii lay def chaque jour xanaa danga ko yëgul da ngay liggéey di moo tax buy def lii doo ko fekki nangam ki nangu jaxase boppam loolu yaakaar naa bu sa càmmiñ fasee tamit jabar jooju xamoo keneen ki muy am ban façon jeeg lay doon mm-hmm. ndax nee naa la yàlla jox na nit jeeg ci kër mu baax benn façon jeeg euh, baax goo xamante ne sii ne ëllëg boo ko ñàkkee ngay doog a xam ki nga ñàkk ku mu doon ndax am na ñoo xamante si la leen dugal ci pax mi génnewu lañ ca des fois ñu fase jeeg boo xam ne sa njëkki rek moo ko waral moo dox ci diggante ba sëy ba yàqu beneen jeeg ba ñu takkee bu ñëwee kooku moom moo jël suuf mu saax ko riig ci jëkke ba ba mu sens mu xam ne kon ci lay doog a xam ne ki mu doon xeex ak kii ñëw te du benn en général nag ñooy ñëwaat yow yow mi njëkk la ak loo pànk pànk dañ lay pareel parce que bu amee sa melokaan melo ko nit ñi dañuy dem ba dañuy xam yooyu lan mooy sa melokaan diw moom de du yor jal parce que njëkkeem dafa ne en ma nga fa sëyiwul wala dafa sëy bu ko bàyyiwul jabar demee ba nga xam si ki ñu takwaat ëllëg moom comprendre na ko yaakaar naa ba keroog day macc yow mais dootoo ko mën a dara soxna ana mm-hmm. ñu bàyyi xel loolu mu noonu soxna maam Diarra comme ni nga ko waxee rek mu mel ne njëkkee dafa war a xam taxawaay ci biir kër waaw ndax gis naa koo xam ne dafa sëy woon jëkkëram gaañu mu nekk ca kër ga. Ah, goro ba ci boppam ne ay doomam duñ ko takkaat. xëy na lam jotee goro moom moo ko xam ba ne goro bi ne ay doomam duñ ko takkaat léegi njëkke bi ci maanaam jabaru càmmiñam moo mën mënee jëkkëram ba fexe moom muy récupérer ko indiwaat ko ci kër gi ndax yërëm na ko ak njaboot geeg doom yi mu am ak yépp moom njëkke li moom njëkke li moom jabaru càmmiñ macha allah moo ko indiwaat ci biir kër gi mm-hmm. waaye nu mu ko def ba mu ñëwee indi ko ci biir kër gi la commencé nag tawal ko ci biir kër gi mën mënee ko def ay ruubee moom ay yéppam ba fi mu toon nii tas na te li ko fa génne mooy pour comme kooku dèjà fayul naar xolam mm-hmm. ndax moom moo ko indi ci kër gi mu fexe def ay manigansam yooyu yépp ba fex tax mu génn kër gi mm-hmm. loolu tamit njëkkee dañ koy gisee ci biir kër yi mm-hmm. njëkkee yi nga xam ne tamit dañoo sëy seen kër dañuy bàyyi seen kër ñëw seen kër yi càmmi di gérer seen kër bëgg xam sa jëkkër ñaata la lay jox dépense bëgg xam naka ak naka ak nan ngay liggéey ngay nekkante ak sa jëkkër njëkkee tamit defe naa ne wër ta doxee noonu ndax moom fa famille sëy bëggul benn njëkkee sonal ko wala benn njëkkee di lijjanti moom jëkkëram nan la ñu nekkee mm. pourquoi moom mu bàyyi këram ñëw di gérer kër càmmiñam mm. di lijjanti càmmiñam lan lay jox jabar mm. loolu du yoon loolu tamit defe naa ne njëkkee tamit war nañ ko bàyyi bari naam sëy yoo xam ne naqare na li ko naqare mooy njëkkee te loolu nekkul rôlu njëkke mm. njëkke dafa war a jubóog jabaru càmmiñam nekk complice ak moom di kaf ak moom di reetaan ak moom lu ko naqare mu naqare ko ndax dafa fekkee ne même boo sëyul xam nga li si coono yi sëy kon donc bul jël sa moromu jigéen di ko teg ko metti mm. te bari naam jéeg yoo xam ne ñu ngi dund lu leen metti seen biir ka li ko teg mooy seen ay njëkkee mm. te loolu defe naa ne warul ndax lépp loo leble rek dañ la koy fay bu fekkee amoo jëkkër kër goo sëy boo demee da nga fa fekk njëkk yi pànk mel na yow teg la sa xa di la tongtongee te boobaa doo ci man dara da nga ko lebale woon rek kon loolu ñoom tamit nañ ciy sooraale bu baax a baax di xam ne seen jabaru càmmin seen ay jëkkër lañ waaye tamit seen ay yaay lañ ndax njëkke bu baax day taxaw taxawaayu yaay sax nag waaw waaw ndax boobaa dina matal lépp bari naam ñoo xam ne jubawuñu ak seen goro njëkke yi ñoom ñoo tax ndax ñoom ñooy ruube ci kër gi dem di nettali seen yaay mhm. bu nettalee seen yaay te diggante yaay ak doom dafa jege mhm. da nga naan kii li mu wax noonu la su ko defee nga ànd ak moom ngeen di pamte pamte jéeg bi nekk ci biir kër yi mhm. defe naa ne loolu yëpp nag ah war naa mën a ñàkk kon njëkkee nañu delloo si seen xel bu baax a baax xam ne rek leptoo faytoo lépp loo lebal sa jabaru càmmi la bis boo see fay la ko soxna jaara <laughs> waaw lu leer nga wax <laughs> ban yaanaa tey fañ fañ nekk tey di fa sëy neex la ñu fa lan moo ko waral mooy bi nekk ci kër gi lañ lebal seen ay jabaru càmmiñ dara rafetu ci ndax damay wax ne soxna aram lu ne dina umpe ba mu des ni nga meloon sa kër ndaay ak sa kër baay. Hmm. ndax nee naa la jikko dina ji dina la bàyyi fi nga nekk di waaj a sëy hmm. mu fekk la fa nga nekk jitu la fa. Hmm. parce que dégg nañ dégg nañ sa jikko. ah diw de ndeysaan moom xale bu jigéen bu baax la ba mu nekkee seen kër moom. juboo na woon ak jabar càmmiñam ñoom ñaar benn lañu woon daawul liggéey daaw ko seetaan. loolu way wa am solo la fa nga jëm. donc boo demee foofa maanaam même melu na sax. dina la tëye ndax way woowu ñu dégg ci yow. Mhm. mais buñ la déggee ci benn façon boo xam si nga daan defanteeg ak say jabaru caamin doon da yow wàccoo yoon bi kooku moo la doon fekk si loolu day yàq sax sa way fa nga mhm. jëm dañ naan ah nii nii nga mel fii kat noonu nga noonu nga meloon seen kër parce que sa jabar caamin yéen ñaar daaw leen tegg daaw leen teggi mhm. kon loolu yéen ñi nga xamante ne si ñoo nekk si ñu njëkkee yi sax laay wax. ndax man mi di wax yow njëkkee laa ci kër. donc keneen ak keneen njëkkale ci kër damay wax émission bu amee day laal ku nekk ku nekk da nga ciy gis sa bopp nee naa leen émission moom yar la rek boo xamante ne si day fekk nit ki fi mu tëdd moo xam sa fauteuil la wala sa keppaar la foo mënee seetaane sud bi rek wala nga déglu rajo bi rek dina la wala télé bi dina la fekk foofu yee la mhm. kon euh, soxna aram ni nga ko waxee rek noonu la njëkkee ci boppam nañu yam place su njëkkee di fekk lu ñaaw ndax gis naa soxna aram ñoo xamante ne si ne seen càmmiñ yi maanaam dañuy def na di mel ne di doxaa nag maanaam di di di fooy seen bopp ci àll bi mais duñu far mukk seen càmmiñ duñ ko far dañ naan ko yor sa jabar nga takk ko mu mel na mu war a mel yoroo ko xanaa nga nekk ci naan da ngay def ni daan duñ ko ci dindi mhm. lu ñu bëgg di def lenn loo xamante ni seen jabaru càmmiñ yi mhm. maanaam day day def def leen naqar yi yaa ngi may dégg mhm. diw mii sa jabar la waaw da man gis naa eh, kii njëkkee boo xamante soxna aram yàlla xam ne ni danaan càmmiñ li diw dee ko xottil même su amulee sax moom bu amee da koy daggal ay vaccin ay vaalam mhm. di ko jox ah muy sol te loolu lépp maanaam ci taxawaay njëkkee la bokk mhm. ndax nee naa la bëri na sax ay góor ñoo bëgg nañ ko defal ay jabar sax mais seen loxo jotul seen ginnaaw mhm. yow mi yàlla dogal jeeg boobu ñëw ci kër bi sa taxawaay mooy bu ko xeex maanaam bu jël sa bët bi rek nga def ko kujje ci moom lu ko sa càmmiñ defal da nga koy xeeb naan ko nag ndax xam nga lan la solaar man damay wax ne souvent gis nga bu xew amee ba ñépp tuwaaletu dem ca xew ma yow sa jabari càmmiñ yées fa mhm. loolu gàccee jigéen mënu koo weesu wallaahi nga xool ñëpp sañse ñëpp maasàllaa belli ñëpp seen xel dal xam nga jigéen bu xelam dalee soo ko xoolee xam ko yow jigéen gi nga xool sa jabar rek yow nga yërëm ko fekk yow leer na la ne yow maanaam ñàkk xelam mu dal ci yow la bàyyi ko yow mi nga xam si yow yaay njëkke ni loolu soxna Arame loolu dafa amul benn sens nañ jàppale waat bu baax a baax jéeg gi nga xamante ni si ñoom ñu nekk ci biir kër gi ndax damay wax ne si avant ngay am jéeg yow yaa doon togg yaa yàq donc nga am jeeg mu ñëw di togg di yàq di la jàppale ci fóon mi yow tam bu ko seetaan lu mu nekk nekk te bu dee balee baleel bu dee raxas la bu dee togg àndal ak moom te biir waañu sonaanam du loolu moo gën waaye bu ko xeex bu toggee nga ne saful xorom bu toggee nga ni weex na kaanam ñoom sa dañuy xorom sañ seen jabar day togg ba mu sotti ñu sabote ko di ko xajamal wala ñuy jël xorom di ca def loolu tamit amul benn njëriñ parce que la nga leb la rek en général boo demee fu mën a doon ci loolu lañ lay fay mm-hmm. kon nañu daal di bàyyiwaat bu baax a baax xel loolu xam Euh, càmmiñ maanaam jabar ci kër. Mm-hmm. ak sa sa sa sa sa càmmiñ ci kër yow jigéen nga defar rek nga cee war a def allah kulli xaal waaye yàq warula caa fekk. Mm-hmm. ndax damay wax ne soxna aram sëy yàlla daf ko daganal kon yow bi nga xamante si yàlla daganal na sëy boobu yàlla boole ñaari jëmm yooyu indi len ci kër boole sey boobu sey ba nga xajamal ko ëllëg yomal xiyam di nga dajeeg sa borom hmm. te jigen gu nekk amul nga nekk njëkke amul nga nekk mag amul nga nekk xale ku ci nekk major nga te kene ku ci nekk la ñuy sa yaay wala lañu ñuy sa papa bo major la lañ lay topp hmm. boo fekkee diggante ba xam si yàlla moom moo ko dogal ñaar di sey nga fas ko xajam fas ko yaa ñaata sey moo tas yoo xamante ni seen ay jigen la bàyyi ko hmm. après la góor gi di comprendre xam ne lépp ma gaa sa jigen lay doom te jigen ñi dañu rëy làmmiñ nga yor jigen bu jabar joo xamante si moom doxul waxul deful dara moom dafay toog fi mu toog rek moom xamul dara lu dul togg a yekk ak sëy yàlla tax rek moom moo ko yëkk ci soxna aram hmm. donc nga def sa ay manigance yoo xam ne kenn du comprendre ba mu jógee fa rek ci la affaire yi doog a feeñee hmm. kon di bàyyi xel lool bu baax a baax soxna aram ma d'accord maa njëkke maam jaar am na njëkkee soof nag fam hmm. <laughs> njëkk yoo xam dañoo soof dëgg la xam nga dañuy soofee togguñu yàkkuñu jéeg bi ne am na nu demee sax buñ la jublu dañuy xorom sa cin wallaay li gën a soof xorom sa cin su ko defee nag yow dèjà da am problème ñi nga xam ne si bëgg nañ la dañ naan lii musul am dañ ko mm. def mm. ñi nga xam ne dañ la bañ ci kër gi nag naan yii lay def ak yeneen mm. kon donc yooyu yëpp njëkkee ñu ngi koy gée ci kër yi bu fekkee yàlla dafa dogal nga dem ba ñëw nga am ay doom doom yooyu ak say jabaru càmmiñ ak say doomu càmmiñ euh, maanaam ke boole buñ la laalee say doom dañ nga tëb sa pourtant ñëpp sa ay doom lañ bëri na am kër yu am bor problème yoo xam ne loolu moo koy indi ndax ñoom ñëpp say doom la yow yaa dem ñii kër bàyyi jàmbur lañ nekk comme ay yow yaa nekk si kër bàyyi jàmbur say doom kon yow li la war rek mooy sa ay doom ak sa ay doomu càmmiñ nga boole ñëpp yamale mais da ngay gis njëkkee yoo xam ne bu ñu jubluwul sa yaay yow xale bi sax dèjà day am problème ci kër yi duñ la jublu ama buñ la jubluwul jubluwuñ la mm. bu leen xale bi jegee ñu ne puusal fii sa yaa nga xam ne dafa def nii dafa def la xale bi day dem ba day rooba ci loolu danaa sama bàjjen aka bon mm. sama bàjjen jubluwuma sama bàjjen lii sama bàjjen laa te yow ëllëg xamoo ba xam xale bi moom moo lay jariñ am déet yàlla rek moom moo xam mm. kon nañu rafetal ñun ñëpp rek suñu ay diggante rawatinaa ak ñi nga xam ne si ñoom ñooy njëkke yi ak jabaru càmmiñ yi nga xam ne yàlla boole na leen ci biir kër yi defe naa ne même boo dëkku ci biir ma dama gis benn koo xam ne soxna maam jaara mm. dafa def benn acte bu rafet moom nee na man sama jabaru càmmiñ séntuwuma ci moom mu jox ma dara man maay obligé di ko jox dara nee na bu weer deewee man maay dem jënd sama rafetaay maa lépp lépp dara du manqué ma ñëw jox sama jabaru càmmiñ loolu mooy waaw mu def nee na su ma gisee lu rafet dama koy jëndal sama jabaru càmmiñ ndax damay xam ne moom moo sonn ndax man damaa sëyi ji mais moom moo ne ci biir kër yi moom mooy togg mooy yàq moom mooy gérer kër yi ak sëy na mu méttee kon kooku moom séntuwul ci jabaru càmmiñam dara nee na man sama jabaru càmmiñ ni ma ko bëggee sax sax man daf ma yéem ndax dama xam ne ni mu nekkee sama càmmiñ kon kooku xam nga ne mu ngi bàyyi xel càmmiñam mm. kooku moom xam nga ne newul ci kër gi di ruube wala mu ñàkk nekk ci kër gi di ruube mm. kon loolu moom mooy taxawaay njëkke am na njëkke yoo xam ne macha allah moom ñi ngi ci yoon mm. njëkke bi nekk si yoon nag émission kër gi taxu koo jóg ñi nga xam ne ñoom des fois dañuy déraper ñooñu ñoom ñoo waral émission bi ñuy def muy njëkke yi nga xam ne dañoo bëgg rek njëkkee ñu delloo si waat seen xel bu baax a baax mm. jàpp seen jabaru càmmin yi def leen ay xarit ci biir kër gi mm. ñuy kaf di reetaan bokk lépp su ko defee sa càmmiñ tamit moom i tamit xelam mën a dal mais da ngay gis góor ñoo xam ne seen xel dalul ndax dañuy xam ne fa ñu nekk amuñu fa jàmm ndax tey jii sa jigéen yaa ngi xalaat ne sama jabarkat tey boo moytuwul kër gaa ngay tàq te li ko waral mooy jigéen bi nga xam ne si moom moo nekk ci biir kër gi mm. kon donc nañu jàppale seen jabaru càmmiñ yi bu baax a baax immigré yi loolu am nañ ci problème ñoom tamit ndax xam nga tukki dafa metti soxna jaar dafa metti boo sañoon sa kër jamm rek moo fay xew kon donc ñoom ñi nga xam ne si tamit dañoo seen fereer yi dañoo tukki ah ñoom itamit dañ leen a war a mën a jàppale si jabar yi nga xam ne si moom lañ bàyyi ci biir kër gi may leen jàmm ak salaam ndax dèjà rek li gën a stressé war a mooy nga war a gis sa jëkkër te gisoo ko kon beneen problème buñ la ko ci yokkulee rek dèjà da nga am problème toon njëkke yi nañu delloo si waat seen xel bu baax a baax jàppale seen jabaru càmmili ci biir ak ci biti di xool sa jabaru càmmi lu mu manqué le ak lan moo ko naqari ngay waxtaan ak moom di ko génn si situation yu bëree bëri jubóog sa càmmiñ di waxtaan ak moom mu ngay xam ban position la taxawee loolu bu communication amul loolu du mën a am kon faaw ñuy waxtaan bu baax a baax suñu bëggee rek problème yi wàññeeku soxna jaara waaw am solo mhm. fi ngay génnee rek foofu laay ñëwaatee mhm. ndax soxna Rama dafa am njëkk yoo xamante ne si dañoo buure loolu tubaarkàlla macha Euh, ndax force la maanaam euh, jeeg bi de jël seen yére di fóot ci force di paas ci force loolu force la wala de déet. <laughs> soxna am jaar dafa am njëkk yoo xam ne dañoo piire maanaam dañoo neex. Mm. ndax nag jéeg bi sëy ci kër gi rek dèjà am na ci njëkk yoo xam ne ñu jéeg bi daara fóot bi yow la togg bi yow la lépp lu war a parce que ñoom dañ naan sëy ñu yow yaay sëy lépp yow la war kooku amoo droit di fóotal benn njëkk ndax njëkk bi dafa am ay loxoom pattu làggiwul macha allah. mën na ko bu fekkee mën na ko du yoon nga di ko ko defaral mais dafa am ay njëkke yoo xam ne dañoo féex dañuy yaakaar ne yow yaay sa yow yaa war a def lépp ñoom seeni seeni yére sax yow yaa ko war a génne di ko fóot di ko paase loolu du yoon bu fekkee ne ni mu nekkee yoon mooy war na mën a nekk sax ci ni muy nekkee mooy bu fekkee ne njëkke bi ci kër gi mi ngi jàppale jabaru càmmiñam bu dee togg la xaaru ko ci mi ngi ay ayloo moom ci biir kër gi bu dee bale moom ñaar ñoo koy ay ayloo lu ma mënti doon ñoom ñaar ñoo koy ay ay loo si kër moom dafa jàpp ne rek kii dafa ñëw pour dimbali ko loolu mun na nekk ça dépend bu fekkee loolu moo fekkee noonu la demee jabar càmmiñ bi war naa mën a fóoteel njëkkeem ndax boobu jàppalante rek ndax seetaanu ko ci dara moom mi ngi koy dimbali moom tamit mi ngi koy jàppale mais njëkke bi nga xam ne sii defu dara toggul yàqul deful lenn lu dul ay yërëm kese boppam war na ko mën a sumbal loolu moom benn jéeg du fóotee benn njëkkee boo xam ne si dangaa toog ci kër gi toggoo yàq ko loolu moom soxna maam jaara du yoon xaw ma na yow noo ko gisee soxna dogguma la sax yàlla bu la yàlla dog mais loolu du sens mérite lay doon day fekk yow njëkkee sa taxawaay yow day fekk yow njëkkee sa taxawaay ci kër gi nga defe ko na mu gën a rafete xam nga soxna neexul ba neexul fi sa koo fi lebal lu baax moo xam ne lebal nga ko lu baax gis nga jéeg ci kër gi dina am façon taxaw boo koy taxawoo ci digganteem ak borom këram ci digganteem ak sa yaay ji nga xamante si moom moo leen boole mu naqad ret loolu mu mënoon a farag yaayam di ko poussé ci yenn yi wala muy mën a gas te bokk ci njëkk yooyu ah bëggulu la naqari bëggul nga xiif bëggul nga mar bëggu ko ci say doom bëggu bëggul nga am ak sa sa sa sa jëkkër benn problème boobu njëkkee maanaam sens la mérite la te damay wax ne fii koo fi lebal lu baax daf koy xam gis nga am na jéeg yoo xam si boo leen lebalee genre teranga boobu maa lay xamal ne la wàcc na fóot wàcc na la wàcc na la togg wàcc na la parce que fa nga leen taxawoo la. Mhm. olof Njaay nee na ku la nekkal nga nekkal ko yàlla sax boo ko nekkee bu nekkal sàkkantuma doomu aadama doomu aadama dafa bëgg ko teral. may dégg. Mhm. soo amee sa njëkk li nga mënoon koo xat-xatal mënoon koo bundu xataal defoo loolu lépp nga encadré ko ci borom këram encadré ko sa yaay bu naqari deret encadré bëgg doomam yi dangoo ku leen laal du sens de moo lay fóotal moo lay paasee loo laal. mu ne la baal mm-hmm. du bëgg nga def dara parce que fi nga ko taxaw lay doon loolu nag njëkkali moom moo koy liggéey ci biir kër gi mm-hmm. mais bu fekkee da nga nekk si biir kër gi di manigancé di jaxaseeg yaay jaxaseeg càmmiñ di teg ay diil mm-hmm. di bëgg a yàq sëy ba tax ngay ut beneen xale bu góor pour mu ñëw bëgg am yu mu jëflanteeg sa sa sa sa sa sa jabaru càmmiñ pour bëgg rek maanaam boo xamante ni si affaire boobu dem na ba ba li nga bëgg yow maanaam bu dil bi kalaatee li nga bëgg mu am ko bu ndaw si ne waaw siq xale bu góor boobu rek wala ñu ànd di defante seen yëfi caaxaan borom kër gi mën na cee jote ba am problème soxla soosu yaa may dégg mhm. kon maanaam euh, kooku ki ñuy fóotale ko parce que loolu du sens méritam la. Mhm. day fekk yow nga liggéey ko ci biir kër gi. ndax kenn doful koo fi defal lu baax xam na ko. yow mi njëkk li boo ko liggéey ci kër gi rek di nga ko am mais soo fi nekkee di mën a gaas tamit dana le sa sa jabar càmmiñ du la bëgg a fóotal aw sagar du la bëgg dara du la du la parce que nag yaa ko ko lebal nañu waxante defe ne. Mm-hmm. koo gis ñu koo ko jël jabaru càmmiñam teg ko ci kaw jàppale jabar ji càmmiñ ji moom moo ko fa mm-hmm. moom moo ko fa maanaam jàppale ci njëkk bi. Mm-hmm. moom moo ko fa liggéey soxna Aram. ndax am na ñoo xamante ne dañuy ñëw ci seen kër càmmiñ yi nekk fa mais duñu wax dara luy defar ci seen jabaru càmmiñ dañu koy tong tongal bu waxee ñu ne woo wax bu deful ñu ne moo def te alors ko dara amu ci. kon nag ki nga xamante ne si ne tubaarkalla maasàllaa nekk na ci kër caam ñam defar kooku sens la méritam la tubaarkalla ndax xolub jabaram moom sedd ma di ko fóotal dina parce que man am na lu ma ci xam. waaw soxna Dia ñun njëkkee ma ne ñun njëkkee ñooy def yooyu. ma njëkkee ñun ñooy def yooyu. voilà soxna Aram euh, dafa am benn jigéen bu nekkoon ci kër bëgg ja bëgg maanaam bëgg jabaru caami ñam toppatoo ko toppatoo xale yi di wax mag ji ah sa jabar ji amu fi kenn yow rek la fi am. dee ko defal lii parce que moom xeeb na la mu koy defal ndax yow rek la fi am amu fi yaay amu fi bàyyi donc moom sax xóotajiwul mbubbu xóotajiwul daana defalu ko dara mais taxaw boobu jabaru càmmiñ bi remarqué na noonu ko taxaw rek moo tax noonu la ko jabaru càmmiñ bi tegee ci kaw hmm. nangul moom puuse la bant noonu la ko fonkee noonu la ko doom yi fonkee parce que damay wax ne soxna Aram hmm. sa càmmiñ dina am jabar ami doomam nekk ay xale yu tuuti dinañ am lu ñu remarqué nga di ko doxale seen diggante ak seen pap ci jàppale bi nga jàppale seen yaay xam nga say dafa metti hmm. jabari càmmiñ boobu doomam bi am lu nekk nekk dañ ciy bàyyi xel dañuy dem ba dañuy bu ñu màggee loolu lépp nga doon taxaw seen yaa ñoom dañu ko fàtte soxnaaram mhm. kon nañu daal di taxawaat bu baax a baax si kër caam yi mm, soxna maam jaar ñun njëkkee dañoo doy waar nag waaw mhm. ah, dañuy ruube ci biir kër yi léegi njëkkee yi dañoo maanaam yamatuñ sax si sonal la ci biir kër yi mhm. dañuy dem ci ci wutal di di di di ruube ci mbedd mi pour reeke rek seen jabaru càmm ji ñu am lu ñu leen taasal mun nañoo am sax benn xale bu góor ci mbedd ma jéem ba amanteeg moom ay contact jël numéro xale bu jigéen bi jéeg bi nga xam ne mooy seeti kër gi daal la koy jox ngay woote si téléphone am guddi ak bëccëg suba ngoon moom lu muy obligé sax mooy sonn ba day jël téléphone jox ko jëkkër ji pour rek wan ne ko confirmer ko ne am na ku may woo te man ki may woo xaw ma kan la mm-hmm. day am ci njëkke yoo xam ne tam dañuy am seen xale bu maanaam dañuy am benn xale boo xam ne ci koñ bi la nekk xale boobu moom la ñuy mané gancé may ko seen ja seen euh, seen càmmiñ waaw muy ñëw ci kër gi bu ñëwee ci kër gi di defanteeg jéeg bi nga xam ne mooy sëy ci biir kër gi mm. ba jéeg bi day sentir ne kii jëkkëram ñoom ñaan am na lu ñu sekk bu dee kee góor gi nga xam ne sii nag dafa responsable mais góor gi responsable am na ci yoo xam ne du ci dugg mm. am na ci yoo xam ne si bu ko jigéenam bu ko ci naree duggal du ko nangu mais dafa am góor ñoo xam ne parfois bu day nekk ci ñoom. mais soxna Arame foofu bu ah? mën a demee dafa am ay njëkk yoo xam ne danoo <laughs> dañ naan la gis nga boo làmbee bul daw ñemeel maanaam ñoom ñoo jël xale bu jigéen boobu ñu ko may maanaam ngoro lay doon bu ñuy dox pour maanaam kooku ñëw dëgg a defante yow ci kër gi jàpp diw mi dafa am gel te alors que sax ku góor ki yëgu dañuy monter xale bu jigéen bi voilà dañuy monter xale bu jigéen bi waaw wax ko jéeg bi su ko defee moom déjà day ñeme xa day ñeme jéeg bi nga xam ne mooy sëy si da koy ñemee mm. parce que ni mu koy ñemee mooy jigéen bi moo ruubee ñoom ñaar seen diggante ba tax moom mu ñemee dugg ci biir kër gi mm. ba euh, am yenn intention xam ne daf koy jël loolu njëkke bi loolu njëkkee njëkke am na njëkke yoo xam ne yooyu la def bu ko defee ñu naan ko ñëwal dama sama càmmiñ damaa bëgg dalay taq bu la takkee indi la si biir kër ngay defanteeg jéeg bi damaa bëgg nga defanteeg moom toor ko moom jéeg bi defu leen dara dañ ko jubluwul rek xam nga nit soo ko jubluwul moom da nga def façon ruube bu nekk ne ko leer na moom buñ ko ruubee ba dugg si biir kër gi lu gën a tàng gën a métti lañ koy wan mooy jéeg bi si kër gi sax dèjà moom day dem ba dootu xam dara ci kër yi dara lu xewee dañuy njëkkee ñooy dem dugg indi lépp yow doo xam dara yow day mel ne dèjà yow sa yoo ci biir kër gi te pourtant yow sa kër gi sa kër la dañ la war a bàyyi nga gérer nekk à l'aise gérer sa kër xam noo koy gérer defe naa ne njëkke tamit loolu moom mooy taxawaayu njëkke soxna mu mel ne daal loo xam ne soxna maam Diarra njëkke yi faaw ñu delloosiwaat seen xel bu baax a baax te xam ne euh, li ñuy def ruubente yi ñuy def ak seen jabaru càmm yi seen bopp rek lañ koy def. Mm-hmm. ndax nag comme ni ma ko waxee woon sànq rek. nit ki lépp loo xam ne sii buggoo ñu fay la ko bu ko lebalee mm. ndax soo ko lebalee rek amaana dina la ko fay ba mu ba mu ba mu ëpp euh, ak tamit ñi nga xam ne sii tamit mooy njëkkay góor xam njëkkay góor jaxna jaay dafa am dafa reetaan nag bu meer bi amee ay doomi jigéen am na ay doomi góor am na ay doomi góor ak ay mag ak góor mais mais njëkkay góor it am na am na mooy yi nday nga xam ne ak wala góor yi nga xam ne dañoo def rek collaboration ñoom ak seen da seen coalition waaw da seen coalition ànd ànd jéeg ak xeex jéeg bi ci kër gi wax sax tew ñu jigéen ñooñu nga xam ne góor wat bañ yi hmm. fu ñaar toog ñu ñëw ñetteel ñu ñëw ñetteel leen lu ñu wax mu ne ah boo noonu la daal jàppal indi jeeg bi taaloo ko jeeg deful waxul moo njëkk yu góor yi am na. njëkk yu góor yi soxna maam jaara muy magu jëkkër wala muy rakk jëkkër. Mm. kooku taxawaayam ci sëy bi dafa am solo nañu jàppale jéeg bi nga xam ne si gis nga magu jëkkër euh, rakkam même bu mënul moom moo war a mën de. Mm. moom moo ko war a téyel jabaram parce que jabaram jabaram la. Mm. ndax doo la yemul. am na ci ñoo xam ne mën nañ ko mais am na ñoo xam ne si seen doole yeggu fa një euh, euh, rakku jëkkër bu góor tamit dafa war a jàppale jabaru magam moom i tamit ci doole ak nu mu toll daf ko war a jàppale ndax bu fekkee jeg bi xam li ko war dana ko fóotal dina ko defaral néegam dafa yëpp parce que kooku jéeg bi la war parce que moom muy sëy loolu tamit njëkkee bi nga xam ne jabar ji nga xam ne mi ngi koy def Euh, liñ ko war a dimbalee rek mooy ñu jàppale ko waaye da ngay gis ñoo xam ne dañuy def coalition ànd ji xeex jéeg bi nga xam ne si mooy si moo nekk ci biir kër yi. Mm. di ko def ay affaires yoo xam ne da lay leer na lii liñ koy def teguñu ko fenn. taaram parce que ci yoon mais en général jéeg ñuy xeex. Mm-hmm. moo jéeg nga xam jéeg bi nga xam dafa ñëw di sëy ngir yàlla tax. di fóot di togg nangoo sonn na général jéeg boobu la ñuy xeex. Mm-hmm. mais jéeg bi nga xam dafa ñu indaale ay onglam di di ñu koy di may ba mu baax. di poudre foko fek to gul tayel kooku la respecté nak nonu dina len wañ jikko jo xamanteni ne duñ ko sax ñëmé tuddu mm. manam antena la jégg bo gis ñu sonal ko ñom njëkkee rek mo jégg bi nga xam dafa ñëw di seysi ngir jëmé yalla ak yonte bi fas yéenee liggéey liggéeyam tok sëyam sëyam mm. koku rek la ñuy bund ko taal mais jégg bi bank mëna a defante njëkke du len fonto soxna ara mm. kon lo jarna baye xel ara na baye xel bu baaxa ba way nak man sama sama sama njëkke bokku ci yoy mm-hmm. ndax sama njëkke mom day fóotal jabaru càmmiña di leen paaseel di togg ba mu neex di yàq ba mu neex kooku mooy Séeri Taala Ngoy borom Italie. macha allah moom moom laf cat nday Mariam laf cat laa koy waxal. Mm-hmm, mm-hmm. noonu laa ci nuyoo tamit euh, kii nu mu tuddati sax su Soulay moom tam mi ngi Italie. Mm. kooku moom mooy seeri Nday Anta. Ndeye Anta moom tamit dañ koy nuyu bu baax baax di nuyu waa kër gi yépp sama jaara di nuyu tamit ki jàpp ci sañse bi sama tailleur Fallou mm-hmm. moom si xeetu baax baax yi waaw moom baax baax yi lay def ay yi ay yeneen ay yeneen yoo xam ne macha mm-hmm. allah itamit euh, di ci nuyu rek fan si club bi ñoom i tamit dañuy suivre bu baax a baax euh, di nuyu El sama rakk moom i tamit ak lamin moom mi moom tamit dañ koy ziar bu baax a baax soxna jaara mm-hmm. macha allah soxna Aram nga wax lu am solo ndax eh, njëkk yi eh, tubaarkala nee naa leen am na ci njëkk yoo xam sonal lañ seen ay jabaru càmmiñ trop trop trop mm. trop ndax damay wax ne jéeg bi nga xam dafa sëy si te yàlla rek tax en général jéeg boobu rek la ñuy sonal mm. waaye nañ ci def taxaw seen seetlu tax xam ne lépp loo xam si bëggoo ko ko def rek waroo ko def ki nga xam dafa ñëw sëy si ngir jëme yàlla mm. kon soxna Aram dama lay daal di bàyyi rek nga daal di indi sa kàddu bu mujj maanaam sa kàddu bu mujj macha allah rek eh, mu mel ne rek kër gi moom Euh, tey émission bi mu indi woon rek mooy njëkkee yi ndax nag njëkke ci biir kër gi la ñu bokk ndax nag wax dëgg yàlla boo nee sëy njëkke da caa am doole euh, na fekk njëkk bi xam lan mooy rolam ci biir sëy bi mm. xam lan mooy taxawaayam ci biir sëy bi bu ko defee rek moom tam mu mën a jàppale jeegam bi nga xam ne moo nekk ci biir kër gi waxtaan ak càmmiñam mu jàppale jabaram tée ko tée bu baax ndax nag defe naa ne sagu njëkke mooy jabaram ñu tée ko tée bu baax yor ko yor bu baax xiiful maru raflewul fu mu génn macha allah ne ay moroomam ñu respecté ko xam ne kii que téye nañ ko loolu dama defa ne loolu moom mooy rëru njëkke kon njëkke yi dañu delloosiwaat seen xel bu baax a baax mhm. euh, jàppale seen jabaru càmmiñ yi ñi nga xam ne ñu ngi ko doon def tamit euh, ñu bàyyi ko ndax loolu amul benn mujj ndax loo leb la rek dañ la koy daal di fay mhm. euh, su ko defee rek di remercier bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo jàpp ci sañse bi comme ni ma ko waxee woon sama tailleur waaye tamit suñu techniciens yi ñu ngi leen ziar bu baax a baax Euh, kii nu mu tuddati sax Alpha ak euh, Alla Wade moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax euh, nuyu ñëpp rek ñi nga xam ne si ñoom dañuy topp suñu émission bu mag bi ñu wax kër gi. nga xam ne si dañuy aimé di partager lépp lu ngeen partager rek doyul waaye El Hadj Seck El sama rakk moom tamit macha allah ndeysaan moom nee na ma aram yéen seen tamit dafa am solo. ma ne ko nag lii la émission kër gi moom lépp a ngi ci biir lépp tamit bu leen fàttee ngeen i commentaire bi da cee am solo euh, message lu ngeen lépp loo xam ne bëgg na ñu jàll leen ko fii wala émission wala lépp loo xam ne thème bu ngeen bëgg a ñu waxtaane ko fii ci biir kër gi aimé leen ngeen partagé waaye tam ngeen bàyyi seen ay message message bu ngeen fi bàyyi rek après dinañ ci jot incha allah su ko defee rek ñu daal di koy waxtaanee fii ci kër gi seen émission ba mag bi ñu koy wax rek li ci kër gi ak Géoul Art TV. macha allah soxna Aram euh, kontaanati naa sax laa wax ndaxte tubarkalla la Euh, am na solo kàddu yi nga fi wàcce yëpp mm-hmm. rafet na lool tubaarkàlla macha allah di amaan mbégte bu baax a baax ak contentement macha allah ci suñu site bi di Géewlu Art TV macha allah euh, di leen indi rek euh, ay thèmes yu am solo ay thèmes yu am solo tey nag ñu indi woon nag maanaam li nga xamante ne si moom maanaam mooy njëkke yi nga xam sa ñoom nekk ci biir kër gi mm-hmm. njëkkee nag bu ñu ko waxee moom waxuñu njëkke bu baax bi nga xamante tey maanaam bu ñu ñëwee ci maanaam affaire njëkkee moy njëkk yi nga xamanteni ne si nekk ci kër yi rek di salfañé manam di jaxase rek njëkk yoy mo taxoon tey ñu ñëw ndax njëkkee fa wut taxawé nonu ndax njëkkee dafa am rôle bu am solo bo xamni si war na ko jouer ci kër bu ko défé yeen jigéen yi yeen xarit yi yeen soppé yi ñun xam si ñoo wara défar defar kulli hal ñu jigéen ñu ñoy défar sa su nekk ngeen daal ci bàyyi xel bu baaxa baax jappalé wa jégg yi nga xamanteni ci si dañoo yaay bàyyi bàyyi ñëw ci kër gi bëgg sey ta yalla rek tax ñu jappalé leen loolu ci daal di am solo bu baaxa baax sonaram di jaajeufal bu baaxa baaxa baax wa entreprise Ah, ah, sekk da bax machallah allah ah, ba sekk di jajeufal bu bax bax rek machallah entre prise sekk et frère Demba Seck tuwarkala kala machallah di ziar bu bax bax groupe soppe soxna jaar di fan club bi ñong kay ñoy ñoo jajeufal bu bax bax machallah waye dem rek di di di len fatali rek nag kala wa groupe soppe soxna jaar am ay produits am solo yu ñuy liggéey am ay produits am solo yu ñuy liggéey sa céréales locales. yu am solo dinañ defar araw dinañ defar caakri dinañ defar cere Euh, dinañ defar lépp loo xamante dafa xeetoo ci lu jëm ci wàllu dugub te maanaam set na te sell na tamit te wóor na macha allah ñam leen ko ngeen seet incha allah taala fan yu néew rek dinañ leen uh, indil produit bi bu ko defee ñëpp ngeen teg ci seen bët su ko defee uh, ñoo nag dañuy daal di sant suñu grand technicien di àlla uh, waad suñu cameraman bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm directeur Alpha Sow moom tam ñu ngi koy sant di ko gërëm di jaajëfal bu baax a baax tamit Belal Sow waaye tam rek di sant bu baax di gërëm suñu maire Cheikh Dethialo sek le maire de la commune de Ngourane fàttewuñu monsieur Abdourahmane Diop waaye tam fàttewuñu benn yoon Mbacke Dieng tabaarkàlla macha allah foofu ci marché central bu géewul waaye tam di jaajëfal bu baax a baax rek euh, Cheikh Diène Seck moom tamit euh, commerçant waaye tam di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xamante si ñi ngi taamu site internet bi di euh, géewul Art TV di jaajëfal tamit mbokki diaspora bi yépp sant naa leen gërëm naa leen jox leen rendez-vous incha allahu àllarba ci beneen émission li ci kër yi ci beneen émission incha allahu taala jërë ngeen jëf mbokk ci déglu